xasida nag daa doon loo xamante ne mbur yëpp ko di jàng muy jigéen muy góor ndax Sëñ Tuubaa nee na mes écrits donnent une bonne conduite au lecteur sama sama njàng day jubal doomu aadama képp koo jàng da ngay jub da yaru danga nga jub moo tax xasida ñëpp ko di jàng ndax day def ci yow ak yiw ak njub ak yar ak ci teggin len lu Sëriñ Saliou lu ko weesu sëñ Saliou kat kurus gi kat damaa xëy tey barkeeloo ko ndax ku tedd gi sëñ Saliou moom la daan wérdee waaw dañoo xëy dañoo xëy bis dañoo xëy bis muy séddale ay bagages muy séddale lu ne mu séddale ko ni yuut kurusam gi mu yoroon ma ne ko man de amaguma ci barkeelu yi muy hmm. ma daal toog xam ne danaa am sama wàll mais ba bu yàgg. muy wér di wér di wér di wér di wér di wér dem googu muy wér timis wér dem yu baax yu sell yooyu yu tedd yooyu nga xamante ni su ko wér dee ñaanal na àdduna bépp waa penku waa soow ak waa waa bët gànnaar ñëpp ci lañ bokk ci wér gi ci ñaan gi ndax ñaanam yooyu muy ñaan timis bu ñaanee ba noppi day dugg taxaw sëñ Saliou day taxaw jàkkaarloo ak penku ñaan taala ñaar loxo yi bu ñaanee tourné bët gànnaar daal di tourner soow waaw daal di def les quatre points cardinaux est est nord sud ñaanu at du bépp door a toog loolu may maam moom adduna maa koy yër may borom jamono bàyyiwul catholique bi bàyyiwul kenn ñëpp lay ñaanal amul xaj seen ndax nee na ruus naa jamono doomu aadama kat mu dee dem safara dañoo mës a xëy ñëw daa am kilifa ko mës a ñëw fekk mu toog xam nga sëñ Saliou ci Zaire. nit ñi dañoo jàpp léeg-léeg da ngay ñëw fekk ku dëdd adduna ndax daa xam adduna mën a dëdd bis jot am ku ñëw ni ko kilifa la du ma ko tudd nga ko ah moom mii ngay solde moom daa kilim loolu ay yëre yi damaa bëgg ñu koy fóot ndax moom yëre yi moom nangam nangam ndeysaan sëñ Saliou benn place lay toog ay yëre mborte tilim ci connaissance rek mu xaar ba kooku dem moo mu ne ma lu ma ci xamul day mooy bakkaar yi suñ sala jëmee siyaar si di ñëw dama siyaar si bakkaar yi ñuy bakkaar moom laay taf sa mbub mi moo tax muy tilim waaw sëñ Saliou waaw waaw kurus gi waaw dama koo dagg waaw mus maa ngi ñëw foofu kurus gi di laay wax de mu wer de ba noppi daal di yor kurus gi dama sala sa barkeeloo ngi nii de man nag Mbàkke lan laa ciy wax man kurus kat bu ñu ko joxee da ngay de ma guddi naa la wax lu ñu ci wax ñu bàyyi ba guddi jot ma laaj ko ko mënuma hmm, négal rek ne nga de sëñ Saliou bu lay wax dara sax mënuloo la ko bañ a wax da ngay ba guddi mu yeelal ko wax guddi jot may nalaw mu yee ma ci guddi gi maanaam gént gént la di dikkee waaye du gént xam nga sëñ tubaa moom bu lay feeñu da koy wax gént waaye du gént moom ma day wax nangam ak nangam. lim bi nangam ak nangam lay ko wax waaw noonu la deme du rek la ma jox barkeelu jox na ma mbubu mbub moo xamante ni waaw mbubu ci ku tedd la jóge ndax bi ma koy jox dana ma mbub mi kat sama waajuru góor rek moomoon ku xam naa ne bu ma ko fa bàyyi fii salaaw dina réer te kenn du ko jariñoo dama bëgg nga ba nga koy barkeeloo jariñoo ko jox na ma seet jaasi jaasi jox na ma ko jaasi ku ne xam na ne jaasi ci lislaam leneen lay du waaw leneen la waaw jaasi moom kuñ ko jox ah boo gëstoo boobul xam-xam sax da ngay laajte jaasi buñ la ko joxee moom mooy leneen la ci lislaam waaw foofu laa jëm dafa mel ni bis maam ay samba booy yi duggoon biir kër sëñ Saliou samba booy yàgg na ci jamono. jamonoy Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sax amoon na ah ñu jàpp ci kenn ñu ma jëflante moom ci saayir waaw mu xaw ma am nu ma def gaañ ma sama loxo ma ñëw ma ah, yow de man ngaa jox gannaay daal di góor góor a jëy góor a jëy ñëw mu ne ko demal sama oto ba sama Mercedes bii mu jox cheikh bi bi mu jox cheikh bi ci ginnaaw am na jaas ju naan rango ci ginnaaw ak kaamel alxuraan moom damay ne ma jaas jooju góor indi jaasi ji mu téye jaasi ji ñam ji lu yàgg ne maam waaye salaaw néew ma la kat salaaw nga xeex ak moom damaa bëgg nga ko yor rek li fekk yaa ngi ko yor lépp lu la wër ci fukki kilomètre ci fukki kilomètre juróom nga arrêté foofu jaasi jaa ngi sama kër ba denc waaw ci ay xeetu barkeelu la waaw kon moom bis bi waaw dañ koy nettali rek mos dama xamatul fu mu demati waaye day waaw waaw loolu de moom sëñ Saliou du nit waaw waaw waaw waaw moom day waaw waaw ndeysaan ndaam jamono bis ndax këram daa bëri xam nga xéwali bu bëree muus yeeg ñëpp janaa bi ci bokk waaye la ñoom bis am janaa bi yoo xam ne dañoo dugg ci biir néeg ba ah, di yàq moket yi ak néeg ba di ko yàq suñ bi nag daal di àll nekk ci tàngoor nag ne ma sàllaaw day muus yi de yàq nañ sama néeg bi de waaye muus fee de moo seen nijaay moom de boo ko jàppee yeneen muus yi dañ dem kii xàmme muusu nijaay ak i bajan waaw kooku du nit du nit waaw sëriñ Sall li mu doon sax la kenn xamul dafa am benn bis am benn xale gone gu ma ko xamante ni ndax si biir li daan def mooy maanaam guddi bu san jot dongee dañaan fanaan ak moom am na fi sax ñu fi ne ñoo xamante ni li may xam nañ ko moom xale koy bës guddi bu jotee dañ koy bës bësam nag nak ngay def bis jot mu ne ma ah tey damaa bëgg nga noppal ndax xam naa ne daayira yooyu sonn lool bës bi moom xam naa tey moom wol ma genn gone fere rek ci biti ma ma gis nga genn gone gu taxaw ma ne ko kaay wuy sëñ bi gone gi daal di ñëw daal di fanaan si néeg mu si Modou Ablaye Fall Ndar ba ndax kees sëñ Saliou gi dañ koo xaaj ay ay appartement siñ gii sëñ Modou Badar Diop la tudd moo ko defar gii sëñ Mourou Ablaye Fall dara ko defaroon gees yi am na Abdou Dieng Mbanda Fade waaw kenn ku nekk dañ laa beral say kees ñoom ñoo ko tabax xale bi fanaan ak sëñ bi ba fajar jot ma dem tàngali café Touba gi ñu indi tegal sëñ bi ma ko tegalee ñëw sëñ bi dama ma ah, ne daam lu ma jaaxal lool ma ne ko ah, xew ma ma tëdd biig def fii dama suuf ngege naay gi dama fay bàyyiwoon juróom million tàggat ma ñëw fekk mu fi ndax xam naa ne du yow du man gone gi fi noon daal laa bëgg dem seq nga xool ba balaa moo jaay xaalis bi ndax doo ko xam da ko yàq gone la ma daal taal sa boto dem marché Ocass dem fa fàqmaan yi nekk waaw ndax xamoon fàqmaan fi ñeneen dama koy xam ma dem ba ci ñoom di wër gone gi fi seen ko ma nga jënd ay bagage façon bagage bu ne jënd na ko xam xale rek façon bagage bu ne xujur xujur gu ne mu jënd ko ma ñëw ni ko nipp tee ah yow def mbir ndax xaalis ba ne ci suuf ngeen naay yow mi yaa ko jël ma ne waaw jaay naa ci de ma ko nga ci jaay mu jaay naa ci trois cent mille ma ne ko nañ dem fi nga ko fi jëndee woon lépp ñu delloo ñu dem ba fi ko jëndee lépp yëpp ñu delloo waat koppar gépp dajale ko ba mu ñëw ñu jël ko ma ma dóor ko sa bopp ñëw indi ko ba ci bi mu toog sëñ bi ne waaw damaa bëgg nga may ma tuuti ak moom may maa tuuti ma waxtaan ak moom. ma may la ñoom ñaar képp ak génn gone gi di jooy waaw gone gi jekki-jekki daal di génn bi mu génnee muy jooy bay sërxat man ko yow lu xew xanaa si bi dala dóor ma dóora mu de mu ngi jooy rek moom man ko wax sa waay ah waaye wax lu xew si bi xanaa dalaa kaata wala yooyu ci nopp ak yow de léeg day yooyu da koy def man ma kaatoo ma de man ko lu xew man ma ah dootuma jëlti ay bagaasam tey man ci daara ja lay dee man ko waa lu mun a man daal bi ma woy ci biir néeg bi te dama sama coopérative yaa ko jël ma ne ko jëluma ko mënuma bul weddi na xaarim jàpp na la waaye damaa bëgg dama laa bëgg a wan mbir tey sëñ bi jekki-jekki sëñ Saliou de moom mën ngay may nettali xale du fen xale bi daa def fitas nee na sëñ Saliou daa fitas loxo muus bu noir a génne ci ronal li toog muus mi toog de mën ko koppari ku ko muus bi ne ko diw mii moo ko jël barki Serigne Saliou kay mu ne ko xanaa sama kër gi lépp lépp li fa jël muus yee ma koy wax mu dellu ci siru Souleymane ya ak Moussa ak Insa da ko yor Serigne Saliou mooy lépp lépp daje ci moom kon xam naa bu ko toppee waxtaan bi waaw dana kii duñ doyal sëñ Sall duñ ci doyal ci moom waaw waaw kon ñu fonkaat sëñ bi fonkaat xasida yi fonkaat jaamu yàlla gi waaw tey tubal suñu borom dañ koy tubal yàlla suñu borom dañ koy tubal di tub tey sàkk sarax sarab si bu ci waay xeeb dara bu ci waay dara te boo ko dajalee ba mu lot ba mu bëri nga jox ko ji ko yelloo te diggaleen ak jaamu yàlla